Ndiaye laa fii jàkkaaroo jox ma micro yi <laughs> fii Macky Sall doot doot candidat awlu studi la xam ngeen ne Macky jeexal na troisième mandat amu ci droit na nañ ko ca kaw 2024 Macky Sall day président day doon candidat am déet Macky Sall hmm. non seulement Euh, war na ko mën def te ak itam est-ce que war na ko def. nga bëgg wax ni kon mandat juróom-ñaari at yi nga xam ne njëkk na ko def de 2012 à 2019. Mm. kon bokkul ci mandat yi bu ñu sukkandikoo ci constitution bi. kon Macky de wut troisième nga foog. Macky dina ko wut. dina wut troisième mandat. mandat nii oui nii non euh, fi ñu toll nii coow li mu ngi ci dëkk bi ba léegi ba léegi coow bi euh, fayagul ñu koy wax ci journaux yi di ko bind di ko waxtaan constitutionnaliste yi di ci wax jël ñëpp ci waxtaan gis nañu sakkan ku ci wax mbiru mandat bi rëkk nañu diggam euh, dañuy doon laajte est-ce que deux mille vingt-quatre da ngay demaat wuti baatu sénégalais wala déet ma mu ngi préparer troisième mandat li mu mën yëpp mu koy def mais on verra ñun ñun même bu ñoom Sonko marché wul ñoom ñi ci des marché wul man je occupe yow professeur nga bu ñëpp ràññee ci Sénégal mm. xanaa ministre d'état jaralu la nga jël salfaañe suñu constitution bi nga xam ne moo nekk au-dessus de tout. non pas salfaañe. ah parce que li constitution bi wax ñëpp di la déglu soo ba léegi ñu ngi naan ma laaj laajal professeur troisième mandat bi pour mu leer tey une bonne fois pour toutes dañoo bëgg nga wax leen ndax président am na droit troisième mandat oui ou non. dans ton intime conviction. mon intime conviction. oui statut de ministre d'État m'empêche de l'exprimer. ah bon? parce qu'il y a obligation de réserve qui c'est le mandat du président de la République, parce que la constitution sénégalaise lui permet aujourd'hui de briguer un troisième mandat, comme on dit. Législatif, les représentants du peuple, est-ce que leurs mandats sont limités dans le temps Les députés. On peut être député pendant 50 ans, en représentant le, le peuple. La, se pose la question du mandat représentatif. Au niveau de l'exécutif,

ak ndax am na ci droit am déet. man Macky Sall laay jàppale. moom laa àndal mu lay politique. Euh, li wolof yi di wax nag gan du yewi ay bëy wala man gan ci la ko neex moom lañuy ñuy jàppale. moom nee na lii maandu leen ci ko dañ ci maandu. coow li bari na par rapport ak troisième mandat wu président Macky Sall. Mhm. yow loolu lan moo si sa gis-gis. président Macky Sall. Mhm. bi ñu ko en deux mille dix neuf. Mhm. dafa woo. ñi nga xam ne ñoom la àndal yëpp di liggéey nañu dama bëggoon pour waxi beneen mandat yooyu ñu teg ko ci suuf bañ ci wax mais nag comme niñ koy waxee lépp am na appam bu jotee moomu mën a prononcé wu à ce moment donc le oui le ni oui ni non moi je suis d'accord avec lui dama ni uh-huh. ndax yaa ngi assumé ni président Macky Sall su bëggee troisième mandat yow Mame Mbaye ci jàppale bu ñu bëggee liggéey ba le avril bu ñuy constituer groupe yi dem ci débat président après discours am la ñuy jóg aborder sujet boobu pour le moment bu ñu forcé wul focus ci PAP 2A bi musiba dina am parce que Covid bi jël na deux ans te yeneen deux ans yi des nii. Euh, bu ñu forcé wul liggéey. dinañ ñu man mi ngi may wax ak li ma lay wax. donc waaw déedéet non man li ma lay laaj. mooy moo tax moo tax ma ne la duma ci wax tant que boobu jotul man loolu laa conclure. Mm. mais li ma wax ndax maa koy assumé papa nga maa ngi koy. assumer ba tey lan ndax li ma wax noonu. non laa wax nga wax ko non li li ma wax. non mooy lan li ma bëgg ma wax. bokk na ci li tax askanu Sénégal faloon ko mu saafara ay jafe-jafe te man mandat nekkoon a jafe-jafe. tey jii ni nekk fi sax di wax ndax du war na am troisième ou pas mandat loolu sax défaite la ci président Macky Sall. parce que waroon na ko régler ba nga xam ne on passe à autre chose. un des vingt trois pays yi gën a ci àddina bi war na tal leneen lu dul di wax ay troisième mandat. Macky Sall contrat am ak sénégalais yi fukki at la ak ñaar fukk la waroon doon sax fa war a ma yem dama jàpp ne lu muy jëf fi mu nekk nii da cee war a feeñal kuy waaj a tàggu dem yoonam. lu muy def war na ci dugal luy këppatale keneen wala luy xañ kenn cëram ci droit ak ambition ci biir Sénégal li ma jàpp mooy war fi toog tey jii dindee coowal kacaw kacaw yi troisième mandat mën na am wala mënta am te man dama bokk ci ñi nga xam ne ni sama wax lu ma d'accord ma tey xalaatuma jàpp ne Macky Sall war naa ut troisième mandat waru ko nangu même bu ko ko loi may woon kàddoom da koo jiitu xalimam jiitu ko ci waxam jiitu ko ci ak démb li amoon te jur ci fitna jafe-jafe réew mi warul nangu moom mu nekkaat jafe-jafe di jaar ak ci moom ginnaaw bi ko Sénégalais yi defal loo xam ne defaluñ ko benn moroom ci histoire Sénégal. y a l'article de la constitution boo xam ni moo ne nul ne peut faire plus de deux leer na ba article daf ni kenn ci Sénégal xam nga nul mooy lan nul du personne de xam nga nul ak personne personne ne peut ak nul ne peut faire du benn personne ne peut may mais kenn mënta def. nul ne peut faire mooy kenn mënta def ci benn anam xam nga du benn ci français voilà constitution bi waxul personne ne peut faire daf ni nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs leer na waaw dama ni la problème mu Sénégal problème Macky Sall pour man du problème troisième mandat xam nga mooy lan problème mu terminer deuxième mandat bi xam nga ñuy wax makk Sall di wax troisième mandat man ñooñu dama yaakaar ni xanaa ñoom dañoo <coughs> amul analyse wala dañu gis àdduna bi ni mu bindoo xam Macky Sall lan war a siiw fi mu toll nii terminer deuxième mandat bi réew moo xam ne on est à presque une croissance négative jóge 6 pour cent de croissance ba 0,7 pour cent de croissance nga war a dem ci beneen année boo xam ne nii sa affaire day gën a metti réew mi di gën a tar nga jànkoonteeg jeunesse boo xam ne dañuy gën a mer mais grand man de pense que ñi ku bëgg Macky Sall dëgg dëgg dëgg dëgg da koy xalaatal nu mu mën a defee pexe sama gis-gis man hmm? ba terminer deuxième mandat bi pour man loolu mooy débat bi. dama jàpp ne Macky Sall. devant l'histoire et lu gën ci moom et lu gën ci réew mi sama conviction profonde mooy que 2024 mu daal di dem mm-hmm. mu daal di joxe lenge yi ci ci jàmm xam nga Abdoulaye Wade est venu au pouvoir à l'âge où Senghor l'a quitté 74 ans Macky Sall est venu au pouvoir moins de 60 ans c'est extrêmement jeune pour être président yàlla moo ko ko cëral mais alors loolu ku ko ku ko yàlla ku ko yàlla defal pourquoi tu cest à si Macky jëloon benn tableau il s'amusait mu daal def troisième mandat bilan coût avantage mais avantage moo ëpp téeméeri junni yoon un troisième mandat risqué mhm. boo xam ne d'abord c'est pas sûr que di nga jàll soo jàllee mun nga toog ci ay nen comme ce qui est arrivé à Alpha Alpha Condé et c'est pas tu tu n'inscris pas ton nom dans la trajectoire démocratique du du du pays. su Macky Sall def troisième mandat da koy def et sans état de toute façon Benno Bokk Yaakaar de candidat en 2024 kan la xawma ko c'est pas comme moi moo ko décidé mais arrêtez avec ce troisième mandat y a rien troisième mandat buñ ci àggee ci def ñu ci war a def gën leen ñoo politique dàq leen ñoo politique moomu leen réew mi mun leen mu mu leen mu leen téye suñu làmmiñ amul kenn kenn laa wax du kenn koo xam ni mën na defati ñaari mandat yu tegaloo xamuñu mandat bu njëkk bi ñaata at la ba ca topp ñaata at la ce n'est pas notre problème c'est le mandat qui nous intéresse. am na benn xaritam bu may waxtaanal. Mhm. mu ne ma non Macky boobu du troisième mandat am. deuxième mandat deuxième mandat ma troisième candidature deuxième mandat nan la ma ko waxee <laughs> reetaan na nee ma troisième candidature deuxième mandat. am na ku ko waxoon leba leba leba leba est-ce que booy poser question Macky Sall la koy wax la ko est-ce que tu de faire ton premier mandat de du quinquennat ou bien ton dernier mandat. <laughs> tuddewuma ko deux troisième mandat deuxième quinquennat laa koy tuddee Pape pour wax ji leer ci bopp sénégalais yëpp su ma la déggee dafa mel ni danga bëgg wax ni kon président de la république mi ngi doog a def euh, premier quinquennat quinquennat non troisième mandat bi nag treize mi ngi xeeñ nag fi mu nekk nii sa à dire nga bëgg a génne sept yi ci mandat bi et nul ne peut faire deux mandats consécutifs <laughs> loolu mën nga ko teggi loolu Thérèse Faye man daal li ma la mën a wax. non ni loolu loolu mën nga ko dindi loolu. li la wax comme reconnaître nga bii passé sept ans la woon rek baax na. bi ñuy voté loi constitutionnelle pour la limitation des mandats à deux et de leur durée à cinq ans chaque chaque chaque mandat boobu mu ngi ci mandat sept ans. or li ñu def ci mandat sept ans mënut a rétroagir mënut a gestu ca ginnaaw. Mhm. pour commencer ca loo xam ne. booba loi bi taxawagul loi bu taxawee. ñu ngi koy comptabiliser à partir de fiñ ko wote jëm ca kanam wante du deltu ginnaaw or bu jëmee ci kanam mandat bii mu commencé de cinq ci boobu mandaa la compte compte bi di commencé. d'accord il y a un principe général de droit qui di une chose que benn juriste promoteur dina ci àddina moo de que une loi autre qu'une loi pénale plus douce ne peut être rétroactive moo di tey. loi ba nga xam ne mooy loi pénale mooy xëy na nga def tooxi doon ñu war la yóbbu kas wala ñu teg la ay daan bu amee loi bu bees bu ñu wotee ba nga xam ne tey dañu woon kii kat ku ko def fukki at lañ lay tëj loi bi bees ñaari at la bu fekkee attee guñ la dañuy atte ci loi bu bees bi bu dee loi ba xëy dafa dikk na nga ni ñaar ñaari at lañ lay tëj loi boobu dikk ne di juróomi at la ñuy tëj kenn du la atte ci loi bu bees bi ci bu yàgg ba lañ lay atte boobu boobu possibilité rek moo am ci rétroactivité d'une loi qu'elle soit une loi ordinaire ou une loi constitutionnelle kon principe bu ñu ko joxalee moo di que ak lu man di xew la euh, la jurisprudence du conseil constitutionnel de 2012. mën na prévaloir mën na prévaloir encore. donc yow sa conviction. non non mon même type conviction profonde. Ah ah. moo di que je considère que si d'aventure Macky Sall demanderait un troisième mandat le conseil constitutionnel ne pourrait pas se dédire. da koy valider. mais bien laa loolu laa jàpp loolu lay def. amul troisième mandat amul dara. ndaxte ca wañ bi ba ñuy wañ wàññi pour xam ndax ñaari mandat yi am na bii muy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg sénégalais yi dégg ko bu baax amul risque troisième mandat wàññi bi bii bokk na ci ñaareel ba muy diir mooy mekk bu mujj donc loolu war nañ ko dégg bu baax. Euh, tout le monde sait que Macky n'a pas n'a qu'à droit à un troisième mandat il le mais comme on dit en wolof nguur dafa neex. Mais lui, il sait bien qu'il n'a pas droit à troisième mandat. Et la Constitution est claire. Nul n'a le droit d'avoir deux mandats consécutifs. On ne parle pas de, cinq, de mandat de 5 ans ou de mandat de 7 ans. Nul n'a le droit d'avoir deux mandats consécutifs. Point barre. Personne ne peut faire, et nul ne peut faire de ben. Personne ne peut faire, mais mënta def. Nul ne peut mooy kenn ken mënta def ci benn anam. Xam nga du benn ci français. Voilà. Constitution personne ne daf ni nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs leer na boo gisee ñu indi nul ne peut avoir ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs mooy kenn ki ñu jàngal man ak yow di Isaac ba Ndiaye mhm. donc vice président du conseil constitutionnel bi coow li amee en bi ñu paree dafa moo di mu Mounir vous êtes trompé ma ne ko ci naka mu nii vous êtes posé la question le mandat renouvelable est-ce le mandat présidentiel ou le mandat de cinq ñun on parlait du mandat présidentiel. Mm-hmm. il a dit non qu'est-ce que voulait le le peuple en 2001 un mandat de cinq ans vous posez une question à quand a commencé le mandat de cinq ans 2007 donc Wade avait la possibilité d'avoir un deuxième mandat en 2019. Mm-hmm. la même chose peut se poser ñun nag ñu ni kon pour ne pas en arriver là dañuy viser la personne qui incarne le mandat dootuñu sax mbiru mandat ki nga xamante ne moo nekkoon président en 2012 euh, nekkat président 2019 mënatul nekk candidat à partir de 2024 mhm. parce que foofu on a visé la personne et non le mandat c'est l'aspect matériel la bàyyi dugg na l'aspect organique mhm. donc clause boobu li ñu ko aidé mooy mhm. vision bi conseil la moon moo tax keroog ñu wax ni conseil munul wax mënul voter aller dans la dans la logique d'un éventuel troisième mandat parce que texte bi mayu ko ko parce que interprétation stricte lay def du texte te amatul esprit troisième mandat aussi bañ fi am est-ce que da nga jël décision pour pour pour pour combattre loolu. par exemple man je combat le mandat. wax waxuma la wax je combat pour troisième mu ngi sonn nag pour troisième mandat daf koy nëbb mais on verra ñun ñun même bu ñoom Sonko marché wul ñoom ñi ci des marché wul man je m'en amu ci droit na nañ ko ca kaw nul ne peut obtenir plus de deux mandats consécutifs loolu na leer Ismaïla Madior Faye wax na ko Macky ci boppam wax na ko Seydou Gueye wax na ko Mimi Touré wax na ko ti boobu ñoom ñëpp ñoo ànd même bu ko Mbaye Ndiaye bëggee weddi même bu ko Boun Abdallah Dionne bëggee weddi même bu ko ay miiru ñu ngi bëggee weddi même bu ko suq yooyu bëggee weddi ñu nekk benn bokk yaakaar ñu ci ëpp ñëpp dama ni Macky sal préparer see bagages takk leen ba mu baax able able dernier mandat nga nekk mën a koo jàll Sénégal nag bul fàtte ne mooy réewu njaajaan njaay réewu la jongo naa te nee nga yow ragaloo xaw ma loo ci jublu <laughs> ragaloo waaye ñun de ragaluñu de ñun ñi nga xam ni comme ñuy dee ci géej gi amatuñ benn espoir <laughs> ñooñu bu ñu ragalu lu ñu ragal ñu ragalul dee ba dee ci géej gi ñooñu ñoo ragal ñu la gën fan yii dégg naa ay coow mooy loo xam ne daf ma jaaxal sax ndax day mel ne lu xiinul rek xëy taw wax joo xam ni kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko tax jóg ndax réew mi jàpp naa ni démocratie la buy dox. 2016 man maa proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dàkk. ñëpp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment euh, référendum mille 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj ne de toute façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee deux mille dix-neuf lay jeex ci coobare suñu borom ak bëgg-bëgg sénégal yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu deux mille dix-neuf su boobaa man pare naa ci. loolu dama bëgg wax jooju ñu teg ko fële te ñu jublu ci liggéey waaye li ma xaw a jaaxal nag ci réew mi mooy foo nekk ci liggéey rek dinañ la indil wax joo xam ne boo moytuwul boo leen ci toppee dina la tardeel te jaru ko kon fi ma toll li ma li ma bëgg a def daal mooy continuer liggéey bi nga xam ne yéen a ma ko dënk su paree ñu seet boo leen ñu wóoluwaatee am ngeen possibilité renouveler mandat président de la république su boobaa wax ji jeex na waaye keneen la ñu wax ndax mënoo def lu ëpp ñaari mandat yu tegle waaye nag intellectuel yi dañu bëgg loolu jàpp fii interpréter fële ku nekk wane xam-xam ku nekk wane ne yow yaa mën a indi lii ak laa loolu yëpp lu baax la mais vraiment damay ñaan daal ñu bañ a di engagé réew mi ci loo xam ne énergie bu bu bu ñuy perte la amalu ñu njëriñ en tout cas man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séentu fépp ba mu des si mbir moomu. loolu dama bëgg ñu wax ko mu leer te mu mu yem fi